aywa <coughs> mbokk ñu def ñi ngi dem ci Baye Ousmane jaay mi ngi wax loo xam ne ñun ñëpp la concerné ah ñi paasoo juróom ñaar fukk bi ak juróom soixante quinze na ko gisul ba tey baab kon looy seetaat wa minhu aydan jëlee nañ ci moom aydan radiyallahu anhu kayfiyatul ab doxalin fi amali nawaafili ci ni ñuy defee ay naafila ay naafila nañ koy defee tab fii dana doy al muxtasidu ku xam ne euh, dafa yemamaay na ñun mooy muxtasid bu yoom rakka ataani nga def ñaar rakka qabla sufi war a xaataani ñaar rakka xabla suur ñaar rakka balaa ngaa julli fajar ñaar rakka balaa nga julli suba war a xaataani ak ñaar rakka baadaha gannaaw suba ah ñaar rakka xabla asri njëkk tàkkusaan war a xaataani ak ñaar rakka baadal maxribi gannaaw boo defee julli timis hmm. war a xaataani ak ñaar rakka baadal esaa gannaaw gee hmm. ah boo baale saalika asapa wala witr gannaaw ba nga def safaat witr lii boo ko defee yow lii mooy maqsad bi nga xamante ni ah, ñu yemamaay comme ñun bii baax soo ko defee daf lay nekk lu am solo seetal kon suba kon nga def carte boo dikkee ci tusubaar nga def ko 4 2 ak 2 ak 4 mu nekk 8 8 ak 4 euh, boo ko boolante daf lay indi 12 ah su ko defee gannaaw tàkkusaan euh, ñaar rakka ak ñeenti rakka mu juróom benn juróom benn fekk see douze lan la huit ah léegi da ñëw ñaar rakka ah, eh, timis ah, ba gannaaw timis ak timis juróom ak ñett boo ko boolante ñan la mu nekk la ñaar fukki rakka ñaar fukki rakka ak ñett nga dikk géey nga def ñaar rakka gannaaw gee ñaar rakka ak ñaar kon juróom benn ah, ak ñeenti rakk kon waa ak ñaar rakk mu juróom benn bu fekki seelan

Ah, lii nag maa ngi ko jëlee min imlaay Cheikh Ibrahim ibn Alaaji Ibrahim Atijaani bi Koosi atam moom moom moo ko wax kon nag lii boo ko seet la wax dëgg yàlla lii moom maxsad bu am solo 32 rakk wamin mawlaana a Cheikh radiyallaahu anhu ilaa bari komali hadrati jël nit ñi nga xamante ni ñooy kaamil ah, ah ci pay bi lii mooy moom day foog na moom ko nekk ah, ilaa kumal yaa xasrat yi war na lii ñun bokkuñ ci ñi nga xam ne ñooy ponkar yi ci tari ci eh, pay bi bismillahi rahmaani bàyyi ne Seydi Ababacar ibnu Walid Baye Mbaye doomi Baye Alaaji Abdoulaye Niass wa Seydi Ousmane dafa jaar seen pour Seydi Ibra Fall Ibra Fall Aliou Cissé wa man ak koo xam ne yéen xoo dafa jublu saalika na wax ak mel na ñoom asintu jox naa ndigal yéen fi haasal xadri bi dayo fi naafili ci naafila kulla yawmin bés bu ne baynal yawmi diggante bëccëg wala ca ak guddi li ma leen bëgg a wax ci nii woowa moom xam soo na juróom fukk laa rakkaatan ci rakk baynal farde boobu nag diggante farde yi wa naafila ak naafila soo ko mën a compte diggante yaay seet nag boo ko defee mën nga ko détaillé nga def soo defee sa farata yi ak naafila yi soo ko bolantee daf lay indil juróom fukki rakk lii laa leen wax yi nga xamante ni yéen yéenay kilifa yi faqat alimtum xam ngeen ana salawaata julliya faridat doxal nañ ko awalan xam si naa mu juróom fukk ba yonent bi demee bañ ko joxee lañ ko jox mooy cinquante julli juróom fukk fal faraayidu ah kon nag farata ya sab'ata asra rakkatan kon bo sété farata julli dafa nek fukki rakala ak juróom-ñaar wo safé wol watri bu ko indé ñett fekk ci ko juróom-ñaar muy ñaar ha ah? kon nak mu nek euh ah, wa isnta asrata fi day su ko defé ne yeen ngeen defat fukki yi fukk ak ñaar ci guddi ah? su ko defee fukk ak ñaar su fekk see kon nag ñaar fukk muy lan trente war a kaata fajiri ak ñaara kay fajar war a kaata doxa ak ñaara kay yor yor kon ah, mu nekk trente-six wa arbaxa ñeent xabla suuri wa arba baadoo ak gannaaw ñeenti rakka kon nag léegi kon dafay dikk kon nag kon boo dikkee kii ñeenti ñetti ñeent dafay indi kon bi maanaa waaw ñeent ak ñeent ak ñeent ñaar kon dégg arba atuwa kay ñeent ñetti ñeent lu lay indi kon léegi douze ah ñetti ñeent kay ëpp douze la de voilà douze nag kon fekk si lan trente six muy quarante huit wa arbaan qabla al asri wa rakaataani badan maxribi nga def ñaar dégg nga gannaaw tàkkusaan nga def ñaar gannaaw ak gannaaw timis nga def ñaar lii boo ko bolontee daf lay indil kon nag juróom fukki rakka fa daawi moo na ngeen takkoo xalaatal amal bi jëf wa asinoo ngeen jox ndigal li kulli man képp koo xamante ni yar ko bokk dafa xima fii def ci moom ina abaat soppe yi ku koo xam ne bëgg na koo def ci soppe yi ngeen may ko ndigal na ko man ko ko def Hmm, xam naa ñu man na ko man moom buñ ci duggee du sotti waxaa si lii min xayri xaari naf si nag xam nga gis nga jaamu yàlla bul ca forcé bakkan hmm. lii nag def leen ko ci bu leen ci forcé bakkan ali su dee man laa bii defar waxoon naa la bu njëkk ba de moo gën a woyof hmm. yem ci wala xawla pexe amul wala xoota illa billahi alali azim ah, kon nag wal isnataani ñaar tasbiqu mooy jiital ay taf ñaar tusul mooy njëkk wittar deux mooy njëkk wittar waaye nama xaddama jiitu misri bi li tax na ñu njëkkee ñaar doog a indi kenn dafa am secret bu ca nekk na <laughs> moo tax ñu def loolu ñu def safa def deux di doog a dikki fekk moo dikkoon deux dikk ñu dikkaat deux dikk ñu indiwaat un ni la nekkee kon nag kawoon fële moo dikkaat di fii dafa am jaar-jaar yu muy jaar rek pour dikk set ñu may ko nag ah yoonu jaar ci deux ak yoonu jaaraat ci deux pour dikkaat fa bëgg a dikk dikk si rek loolu la ku xam li ma wax xam na ko wasalaam wa kataba akookum ibrahima ibn alaaji abdulaay atijaani bi kóosi ci la ko def ñu def bii mu jeex wa minha aydan bisaaratun xabaar bu neex a neex ñi ni ajibatu bu yéemee xabaar bu neex ay waay na neex kay bon neex neex na waqaal wax naa asayidu alcheikh alkadmu sëriñ bi nga xam ne sang la cheikh la kadmu la asayid ibrahim ibn alaaji wulaaj atijaani ah ki nga xam ne mooy doomu alaaji Abdoulaye Atijaani ah moom wax na ah radiyallaahu anhu wa nafaanaa bihi amiin lan la maa loo xam ne suufoo mu ne awlaadi samay doom alxulafa ñi nga xam ne ñooy ut boo fi demee ñoo fi des bi xawlillaahi ci. xéwalu pexe yàlla wax koo ci katab lakum bindal naa leen al isna ndigal fil askaar yi ci sikkar yi al arbaat yi yay ñeent sikkar yi nga xam ne ñett lañ bindal naa leen ko wa salaas ak ñett nga xam ne taarifoonaha xam ngeen ko dégg de am na ñett yoo xam ne xam ngeen xam ngeen ko xam naa ñun nag xamul <laughs> ñeent ya xam naa wirde suba wirde ngoon waa suba si kër jumaa foog xam ne ko ñett yaa xam ne taarifoo na xaa waraa bi xoo ñeenteel ba xaa xuwa moom moom xatatoo li àqi wala di abi bakar ci xam ne sama mbokk la te maa ko jur xam nga bàyyi mbay mm-hmm. moom moom ñoo bokk waaye nag ah, xam ne moom bàyyam dëgg-dëgg mooy bàyyi laax bàyyi mot seen xanaa moo ko makkay fukki at sax nee na ko yaay ñu jur wa antum yéen nag laqul am ngeen al indigal fi naq lii ngeen jëlee ko mi neen di fa nga xamante ni mooy moom laa jox sama mbokk man ngeen ko jëlee ci moom min indi yi wal kayfit amal yi naka la jëfee anaaman fi qiraat yi dama ko jàng maraton yoon waaye da tan fil yow mi ci bés baral asri danaa ko jël tàkkusaan wa salaam ah xam naa boobu moom ku ko bëgg jot moom dana xaw a jafe tuuti bóot ndaxte jamono yi nëbbu bóot la <laughs> dégg boobu moom <laughs> dégg nga koy defee daal mooy loolu gannaaw jul tàkkusaan wa man xatta moom it xatti aari xolofaa lii de mi ngi bàyyi ko ci kenn ci xalifa al arbati ñett almaskorin bi maanaa mbind mii mu ngi bàyyi ko ci ñetti xalifa yi xam nga xalifa xalifa yi nga xam ne mooy kat kat kat kat kii du xalifaay jam xalifaay toog lañ ki fi toog ñeent yi nga xam ne mooy ñeenti cadre encadrement yi kenn ku ci nekk ponk la su ko defee moom ñoom wax moom laa wax kon nag al arbaatu al maskur osman ibn amatiyan tidiane naqaltuhu naaqilan min qat cheikh radiyallahu anhu man nag maa ko jëlee ci baay léegi nag mubaasaratan pour nag boobaa nag ñu jox ko ñi nga xamante ni ñoo ko mérité kenn ku ci nekk ah ñoom ñooy nag bopp ya ñi des nag ñoo xam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu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 des nañ ci bàyyi Ousmane Ndiaye ka irtiqal murid bindab Cheikh bi ci xatam juróom-ñaar fukk bi ak juróom benn lan la bàyyi Ousmane Ndiaye wax mu ne li ma leen bëgg a wax moomin Mawlaana mi ngi bàyyi ko suñ kilifa Seydi Aliou Cissé radiyallahu anhu alhamdulilah allati bi nga xamante ni waasala moo jokkale continuer financen imdaadoo ay mëdam ay tëbam ñu ngi sant yàlla waa ji nga xam ne moom moo jokkale continuer ay joxam wa ifdaaloo ak ngëneelam wa isaadoo ak texeem ñett moo continuer ñu ko jox wa salaatu wa salaam ñaar yooyu haala sayyidil wujoodi yéen nga xamante mooy sangu nekk gi wa sababu te mooy sabab kulli mawjoodi lu ñu am na rek moo sababa loolu tax mu am loolu la xam ne sayyid wujood moo dëkk de sayyidna Muhammad ba tey mooy sayyidul mawjoodaat ah, waridaa ngërëm attaam gu mat xam man ci yàlla na koo xamante ni sarayaanu sirrihi royaat ak sekkare mbaa fi kullin masuur nga gi tey firi alaaman koo xamante ni wér daa taam xamman masuudun min sarayaanu kull sarayaan yi fi kulli ci lépp koo xam ne nam sa nam royaatee dox ci lépp ñëpp janoon nañoo moom bu dee mën nañ ko janoon te xam nga ne kooku moom mooy borom saayiru ku yoom yëtoom am fu gannaaw sant yàlla ci waxin wii xam nga ne bàyyi ay kàngam lañu xóot xoola suñ ali waxin wii rek fal yaalam na xam alwaaqifu ku jot xalaasal maktub yi ci bi ñu bind bi ànd man safirtu jot naa bi sir luqumati secret tip min hadrat seexinaa jëlee ko ci pays suñ sëriñ bi sirri ayni rahmati ki ne mooy secret jëmmi yërmaande je ayni rahmati kay siroom mooy suñ sëriñ bi ci moom laa jëlee secret luqumati kan la a Cheikh Alaaji Ibrahim Cheikh Alaji Ibrahima ibnu Alaji Abdoulaye ak Tijaani ban bés yowmal arbia bésab alarba ban taarix ak saamin wal ay soroon ñaar fukk ak juróom-ñett ci ban weer ministère lay sabaan ci weer bi nga xam ne mooy weeru baraxlu ban at atam ban dëkk bi ma dëkk Kaolack ci dëkk bi wax ma tudd Kaolack foofu laa ko jotee walhamdulilah kon nag alhamdulilah ko moom awalan ca départ wa aaxiran ak ca mucc wa saayiran ak ca biti wa baat ndax yooyu yëpp am doo fa daw moo tax place yëpp benn tur la tur yi dafa am ëwul aaxiru saayir baat lépp loo gis rek am na ëwlu aaxiru saayir baat ah mi ngi ëwalu ci xaqiqa aaxiroo ci maanaa saayiroo ci photo ah baatinoo ci ay baat ñu wax ne baat yi bind ni muy alifa yu ma xamul loolu yaa ngi xool ne moom la fekk loola baatin la waaye du nag mooy tur yi nag dëgg léegi bilaay nga xor xaasa mbir waqadi tamaa daje na fi bayti day ci bay ci sama néeg ahbaab yi sama soppe ya almuhaqiqina ñi nga xamante ni ñu dëkku lañ alxaasat ñi nga xam ne borom jag lañ min ashaabi cheikh ci ànd cheikh ibrahim yi bal sax waxuma xaas ak xasul xaas nag ñi nga xam ne xaas lañ ci biir xaas ñoo daje ci sama néeg a ah, kan la sayyidi wa mawlaaya nga xam ne sama sang la sama kilifa la Aboubacar almusana mooy Baye Mbaye ah, Baye Mbaye Sani ibnu Cheikh Alaaji Abdoulaye kooku mu fa wa qurratu ayni ak yaa xam ne mooy sama sedd xol kan la Seydi Ousmane Ndiaye ma nga fa Seydi man bay xola ñu muy présenté da kële Seydi wa Mawlaaya kii xol tey nekk ak kan woy bii te sama sopp sama soppe ko wa sa fii teg ko sell ci man sa fii wuddi sama mbëggeel wa sa fii wuddi ka xam ne mooy sell ci sama mbëggeel alaalamatoo Caam ak Amet Caam fekk na ko moom moom moomu xamante ni mooy soppe bu soll ak kan la wa anisi yi ak sama wétal la wa sama toqal bi te nañu sama xol kan la Ibra Fall Ibra Fall yu laay xamoon ne mos ñi ay kàddu de ak kan wala abdu al jàmb alaqil bu teew bi bu xew bi alkaatib ki nga xam bi nga bi kan la Ali moom it ma nga woon léegi waqalañ naa génn nañ jaali seen a toog taata sajaratin ci ron benn garab bu nekk war a bayti ci gannaaw suma néeg ñun ñi ma lim ñi ma lim nii ñoo toog foofu fay seen xaadimu seex noonu nga xamante ne ñu toog la bëkk néegu sëriñ bëkk néegu baay bi attana ñoo ne fekk ñu fi waa xaalal naa mën a ñëw a seex seex yenn bu kom ma nga ne sàkkoo lil xaddaa yi pour ngeen dem de xaddaaw ah, euh, mooy firi añ futóor mooy ndikkee xisaaw mooy euh, reer bàyyi nga ñëw añ si wasir naa ñu dox maa ànd ak moom waatee naa ñu ñëwal cheikh imaali yi ci palaasam alxaas palaas ba nga xamante ni bu dikkee bu ñuy lekk moo cay toog wasalim naa ali yi ñu nuyu ko ñu ne la asalaamaaleykum fooy seen wut ci woo noonu kar kanam bàyyi la uma ngay melax melax melax ñu xool kar kanam bi nag leer yaa ngay eh, melax wa fataamu ubbi radiyallahu anhu al inaa ndam bàyyi daal ubbi ndox fooy seen woo ndab li mam loo atul luñ feesal la bi sëriñ ah yàpp ah léegi nag waasa ak waasa naa ñu damm alxurtumu ramatisaa moo tax ba nu xaasim xasama ñu daal dem daal dem mburu mi ñu daal di ubbi bool bi mu nga fees ak yàpp bi maanaa soos la woon ah ak mburu ñu dama mburu mi wasaraana maa ñu commencé ànd ak moom fii ak lekk ah ñu tàmbali lekk ñoo ñoo bàyyi wa fi asnaay ëkkali ci biir bi ñuy lekk xaaral na naa la nañu xaal aataytukum ndax mas naa la jox seen luquma ci secret luquma ndax mas naa la jox secret secret pip fokk laa ñu ne ko laa ah déedéet faaqasa mu jàpp luqumatan ab pip ah suma alqamaha mu nexal ko asaydi abubakar almaskur mu tibb jox Baye Mbaye xoolal Baye ba mu àgg ci yàlla Baye Mbaye moo ci tegee bu uxraa beneen li Seydi Ousmane Ndiaye Baye ba mu àggee Baye Baye Mbaye àgg Seydi Ousmane Ndiaye moo ci tege bu uxraa beneen ba lil alaamati Ahmed Thiam Ahmed Thiam nag moo yore kon affaire njàngale mi bu uxraa beneen ba lil abdi ñeel jaam bi alaaxir mooy. bàyyi si al alkatib Aliou Cissé moom mu jox ko woo xooraa mel ne Seydi Ibra Fall ah mu jox ko lii muy ñoom juróom su ma xaala mu ne xaasa lii sirun secret min asraari tariqatina bokk ci suñu secret tariqa bi ah na naqool dañu wax ni man alxamtuhoo man ku ma lexal luqumatan ak lajj mooy ak tiit dàqal na dugg ak jant ajana loolu lañ wax ñun day loolu lañ wax ñun waa tariqa ah tibab tibab tariqa bi kuñ ko leeral ah da nga dugg ajana ah léegi nag ah ah bii añ moom neex na moom <laughs> bii añ moom waxuma yàpp ak mburu moom <laughs> waaye bi añ moom benn affaire ah waaw kay am na mbaxus wala maa xarañ naa bañ génne surtout laa mujj astaskilu di jaaxle xal ndax ku lii it nun ndigal naa ñenn ci siri ci am naa wala amu ci ndigal lañ jaaxle waaw lii jox ndigal la wala du jox ndigal faqaale wax li sayidi Ousmane Ousmane dama wajaba aleyka war na jow suñu Aliou Anta Sall nga laaj ko ani Cheikh Cheikh war na nga dem laaj ko Cheikh boo bari salaatu asri yi gannaaw ba ñu dee tàkkusaan atay toolaa ko ñëwal arida anu foo ma fekk bàyyi soo ko setil masjid yi ca kaw terrasse jàkka ji ndax bu ñu daan tax dañ laa yëg ca kaw faral ko jaali seen ma nga toog ala si ca kaw ah fauteuil mu tax bi la xiblati ma nga jublu ko xibla fa danatu minu ma jég ko su ma danatu ma gën koo ci jigaat xam nga ñoom <laughs> buñ dikkee dañuy toog fële di diru bàyyi ba mu yàgg ñu mu gën a jig sax foqultu ma ne ko ñu dey li tax ma ñëw ku naa nekk nañ nasku nastaskilu di jaaxle xaal asente la naa ndax jox nañu ñu ndigal fi si secret am laa wala joxal ci ndigal fa xaala mu ne ko naam asent lakum jox naa ndigal fii coom ah boo waritumoo yéen a ko doon ni ci man yéen yéen a koy jëlee ci man yéen ko doon ci man faamitu laa ma sant yàlla kasiran wa naskuro ñu sant ko walhamdulilahi rabbil alamin lii man nag sir boobu noonu laa ca xam bu dégguma ca boobu tey koo xam ne ñoom jox nañ ko ko walaay naam nu mu doxee ñoom daal baay jox na leen ko ne koo ko jox ah da dugg àjjana kon nag ñoom daal xamu ñu ko jox dégguma ko wax ne man day ali jox na ma ko wala ñu sàngan jox ma dama ko wax na lii daal ñoom bàyyi joxoon na leen secret boobu mhm. nga xam ne mooy secret luqmatu dégg nga wa minu aydan risalatu katabaha alwalid lettre bi bàyyi utaan moo ko bind mhm. ila mawla asaydu aliou Cissé wahiya àllum mhm. min ka maa ngi sàkku cew bàyyi Ousmane moo ne suñ ali maa ngi sàkku cew yaa suy bii xali ibnu xasan xaraa sumu tijaani yaa xam ne yaay xaraas tijaan yi dégg maa ngi lay ñaan taw sidqal mahabbati dëggu mbëggeel cofeel walu boo ak bëgg fi saati aliyati yow mi nga xamante ni yaay xarasimi tijaan yi xam nga de xam nga ali arasimi mooy arasimitu Cheikh Tijaan yi kii nag Aliou Cissé mi ko tuddee arrangé bi tijaan yi maa ngi lay ñaan nga may ma sirqal mahabati wax bu euh, fi saati aliyati ma am dëggu mbëggeel ak bëgg saatu aliyati wal ihaatata ak ma peg bi asraar daairati ihaati maa ngi sàkku ma am secret yaakaar ne mooy secret daairati ihaati saayiraay bi ci wabaat naa ak biir lii de lay sàkku yow xaras mi wootaa ko ak dëggu biir asmaa yi ci tur yi al aliyaat yi asmaa aliyaat nit mën naa jëfandikoo asmaa suliyaat asmaa yi as mooy tribut yi asmaa aliyaat nag dañ koy def taako asmaa aliyaat nag aliyaat mooy lan mooy malaayka yi nga xam ne moom la yàlla ànd ak du ñu seen bi looy malaaka yooyu mooy asmaawu aliyaat mm-hmm. ah? yooyu dañ koy def taako nga may ma ma def daayira eh, dégg nga eh, al ihaatu bi asraari daayiratul ihaatati saari al baatini daayiratul ihaatati nag xanaa buñ paree xaw ko ñu seet ba xam wataaku bil asmaa al aliyati asmaa al aliyat nag eh, mooy yi nga ne mooy féete kaw wal ittisaaf bi jëmi maraati gis nga ko de billaay billaay ñu ñëpp foofu martaba yi da nga leen dee meloxoo asmaawu aliya asmaawu cee def taaxu daayira ihaat bi da nga koy def ihaat lii laa ñaan ak lan war sabqa ak raw bi ma bat seex bëgg seex alxan mi atijaan ma bëgg ma raw ñépp ci bëgg ak seex alxan mi atijaan yi wasir ak siromba wa xalifat ak xalifaam ba fi jëmeen awaalim yi ci mboolem awaalim yi wala xasaraat ci xasara ndax ci xalifaab xalifaab booba ne du xalifaab njuréel xalifaab Cheikh Xadim Tijaan bi moo nekk xalifa mboolem aalam yi mooy aalam moo ol ak suuf boo leen demee mën naa dem ba de indi la fukki aalam ak ñaar ba fukk ak ñeent wala xadaraat ak pays ma nekk fa moo nekk xalifaam ci xadaraat wala xaqaayiq yi ak xaqaayiq yi xalif ba nga xam ne moo ut cheikh ci yooyu man ma raw ci bëgg ko waan àppoon ak ma nekk ah, aminina ma bokk ci nga xamante ni kenn ci nga xam ne aminina ndaxte aminina dafa am groupe boo xam ne groupe bu aminin man dama caa bëgg nga boole ma ma bokk ma bokk wa siddiqiyal maqaami may ki nga xam ne maay siddiq ci maqam bi sama taxawaay taxaw taxaw maqaamu siddiq yéen wa suleymaan yal ma sëri xam nga lima ma doon wax yëpp dinañ koy gis kon suleymaan kon de suleymaan suleymaan yi ma sëri ma doon suleymaanam ma sëri ndax daawoon suleymaanam ba moo doon ma sëram kon nag bu fi dikkee xilaaf bu taxawee rek dafa suleymaan bokk na ma suleymaanu ma sëram ma doon ko ah bay Ousmane Diagne bëgg wala ak ak ma nekk ah, muy baka di ku la bëgg daa iman faw abadan sarmadan moo am ko mbëggeel ko xamante ni dafa continuer ah, sax wa am saaluka ah, alaalina ak ñi nga xamante ni ma nekk ko mbokk sa say misaal say morom ñu kawee wa jëmee ixwaan yi ak mboolem mbokk yi Ousmane ibnu Ahmad At-Tidjani am trois cent à cent kon cent trois mille cinquante quatre ashamin wa esron min si ijjati bi mën na ci Kaolack ci euh, ñaar fukk ak juróom ñett ci weeru tabaski ci Medina Kaolack xamaralaahu bi amin suma ajaabuhoo radiyallaahu anhu bi qawli léegi bind na sëñ Aliou man daal ñii ñoo ma jaaxal sëñ Ali ko alhamdulilah bi qawli alhamdulilah alhamdulilah laaw ko moom wax doo moom dong dong nga bàyyi. dafa tumaranke ñam nekkoon tumaranke ku xamoon juróom ñii ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo làqu ci rot bàyyi hmm. ku leen xam kenn nag xamu ñii ñoo nekk ci sóor bi am na ñu nekk xam ñu seen seen di seen bu tóor mhm. ah, jot naa xaalaa mhm. matlabikum seen càkkute mhm. yow Seydina Ousmane ibnu Ahmad Tidiane Ousmane ibnu Ahmad Tidiane jot naa seen càkkute fa aqulu maa ngi wax la la ba damaa sametoo gannaaw boo ko dégg na min rasulillahi ca ndawal laaw man ba nga ma waxee dama ne pët ndax xam naa ne demande bi dafa jaar ci man waaye borom demande bi mooy wax ma doog laa waxal yàq sa tan ci yëg nag moo ma wax ne moom rasulullaay moo ma wax ne bi anaka yow Ousmane Ndiaye balax la jot nga almaraama càkku téef yépp fi xaas ci lii wafi xëyra ak yeneen yi ma may ñaan jot nga ko ak yeneen yoo xam ne bokk ci lettre bi bal wafoo ko lu paase yi yëpp wala kaa am nga ajal lu gën a foor na sa kat li nga tudd yow li nga tudd nii am nga yeneen yoo xam ne gën a foor yooyu wafi misli asa lu mel na li nga xam ne moom nga am yow nag fale yet naa fi na xëccoo almutasafi naa a xëccoo ñi xëccoo ci kër bàyyi li nga am yow Ousmane Ndiaye ku xëccoo na ko xëccoo wallaay lii moo jar wasalaam aqokum wa muhibukum araji min ka bu loqama fawqahu yaakaar ne mi ngi yaakaar nga jot loqaam ne mu naaw saay ba bàttan Aliou Cissé ibnu Assane moo la bind lettre bi ci atam asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu ah